Public SN ñi ngi fi nga xamante rek moom mooy euh, Zator mbay nekk ministre conseiller auprès du président de la République Macky Sall euh, jiite nag ndaw yu jeunesse su euh, AFP tey ñu nar a waxtaane ci lu nga xamante actualité bi Alioune Sarr nekk candidat à l'élection présidentielle 2024 ñu bëgg ci waxtaan moom ndax tam dafa bokk ci parti yi salaamaaleykum félicité seen seen site bu am solo bi actualité politique bi lay wax ah mais xanaa jax kan, rek kan, eh. te neex xam nga nous sommes des acteurs politiques eh, am na loo xam ne su amee peut être mën na jaaxal ñenn ñi mais ñun moom ci lañ màgg donc euh, ça ne nous ébranle pas AFP parti AFP ci benn bokk yàgg AFP euh, actionnaire la ci benn bokk yaakaar donc AFP mënta bàyyi benn bokk yaakaar ndax nit du jur doomam ba pare bàyyi ko nous sommes actionnaires lu ñu bu amee lu ñu neex ñu ngi ci biir su amee lu ñu naxaree ñu ngi si biir parce que Benno Bokk Yaakaar la Benno vient de l'AFP c'est-à-dire de la coalition Benno Siggil Sénégal donc ñun duñ ko bàyyi ñu ngi si biir nag bien sûr euh, amul benn ànd bu neex ah donc ànd boo gis rek dana am lu baax dana am lu loo xam ne mën nañ ko joyanti mais il faut quand même tirer le chapeau au président de la République qui a pu maintenir cette coalition Hein, avec plus de 300 parties prenantes, ce qui n'est pas évident en politique parce que il y aurait d'abord rek sa c'est différent, c'est difficile a fortiori les coalitions a boo xam ne nit ñi bokkuñu formation d'objectifs, objectifs mais il a réussi autant que faire se peut de fédérer tout le monde autour du plan stratégique qui est le PSE nga xam ne suñu li parce que li ñu boole mooy Sénégal développé ah ànduñu pour pàccoo non dañu ànd pour développer Sénégal et je pense que mi ngi ci yoon. Euh, AFP e ndax day am candidat 2024. tey le 23 février fi ñuy waxee nii AFP e tabagul kenn comme candidat à l'élection présidentielle parce que AFP e d'abord, abord ma wax déjà échappé solitaire gëmu ko ñun AFP gëmuñu ne benn parti mën na dem élection gagné ko ñun dañoo bokk ci ñi nga aujourd'hui nous travaillons à la consolidation et à la solidification de la coalition Benno Bokk ku ci nek nak sañ jog ne man candidat té te guma kenn ku jog mom ci bu guyam ne man mi candidat la su boba la wax di di neex ndax ñun ki nga xam ne suñu kaddu muy président Moustapha Niass dégg nañ ko euh, ci suñu instance régulière da mu ne AFP ñu candidat te loolu nak moy dëgg ndax candidat ci instance mu koy tabu te ben instance bu mais Alioune Sar bi wax ne nek candidat la Alioune Sar bi nga xamante ni moom euh, nit ñi wax les progressistes ngi wax ci euh ni mom ni investir mom bu tay réagir xam nga tey jii bu ma neexoon ma woo fii sama juróomi nit sama gox fi mu dëkk Mermoz Sacré-Cœur ne leen wax leen ne candidat la kooku sañ naa ko de waaye nag parti bi AFP tabagu ko tabul Alioune Sarr candidat à l'élection 2024 parce que amul benn instance du instance jeune du FAP du bureau politique du même instance euh, yeneen yi nga xam ne mooy les instances régionales wala départementales boo xam ne question boobu waxtaane nañ ko donc. Euh, ku wër nag fu nekk ne candidat nga kooku yow la engagé. kooku yow la engagé nga gis ne AFP dañ ko donc 2024 daal du am bokk ci ci présidentiel. danañ ci bokk parce que élection yëpp. élection yi fi mos a am yëpp. est-ce que da nga mos a dugg si benn bulletin benn bureau rek nga gis bulletin bu ñu def AFP mosul nekk. AFP est toujours allé aux élections présidentielles en coalition. parce que tey jii bu fekkee ne États-Unis moo am ñaari bloc démocrate ak républicain war nañu ñun liggéey Sénégal ba euh, leeral jeu politique bi. tey waa opposition seen gis-gis seen yaakaar seen bëgg-bëgg mooy suñu coalition bi tas te ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ñoom lu leen jaral pour ñu tas ñun jaral nañu ko pour ñu coalition bi gën a dëgër parce que gis nañu ne li indi stabilité ci réew mi pendant douze ans c'est parce qu'on a une coalition politique boo xam ne mooy euh, la politique du gouvernement mooy def le portage politique des politiques publiques te loolu nag yombul woon Abdoulaye Wade jéemoon na ko 11 mois la durée ñi dem ñi dem président Macky Sall nag moom macha allah yàlla may nako xarañ yalla may nako ko bu yaatu parce que yombul yalla may nako cette faculté cette capacité de dép cet esprit de dépassement ba tax na ba légui tout le monde est à bord et je pense que c'est un capitaine intrépide. mi ministre Aliou Sall batay euh, réagir groupe par rapport au lolu est-ce que euh, AFP du mujj nek comme PS euh, xaj ñaar. xëy na ñamewul réagir moo tax réagiragul parce que man bu may tuddu ci dara damay génn ma ne lii ñu may tudd maa ko wax wala waxuma ko parce que nag bu dee élection rek foog naa ne li ci des bëreetul donc ku ne yow mi bëgg nga nekk candidat président de la république war nga mën a wër dëkk bi wër Sénégal nit ñi xam la wala war nga mën a am état major war nga mën a am équipe te loolu séenaguma eh, ko en tout cas du ci AFP gi ma bokk AFP gi moom tabaguñ ko te yaakaaruma ne Euh, AFP dina ko tabb élection 2024. mais pourquoi leneen département Kaffrine ñoom Nioro gars yi ku nekk nga ne mooy Alioune Sarr mooy candidat AFP ñu koy waxtaanee voilà te et puis ba léegi kenn démentir benn autorité ku mel ni euh, yow yaay soo ko wax. déedéet man kat wax naa ba sol man wax naa Malick Diop wax na président Moussa Niass mi jiite parti bi ci boppam wax na kooku kan la kàddoom gën a koy kàddoo. Alioune Sarr waxagul waaw mais parce que xëy na moom peut-être que sax ñoo ñu wax peut yoon yónniwu wala peut-être limuy def ñameeku xam nga bo nekk ci gouvernement fukki at fukki at laa la wax de est ce que logique na nga génn nga ne yow ki nga xam ne moom nga doon liggéeyal da ngay jàkkaarloog moom candidat élection présidentielle looy ya, wax ban bilan ngay joxe ban programme ngay teg yow bilan bi bilan bi président de la république tey jii bu doon benno bokk yaakaar am na candidat élection 2024 notre notre bilan moom am am na ci fukki at waaw léegi yow bilan bi am nga ci fukki at léegi lan nga war a wax gaañi ne leen man lii laa lii d'accord ma ci bilan bi te yow nga am ci fukki at nga nekk comptable c'est pas cohérent tey bu AFP doon tabb candidat man bu ma fekke woon instance yi ñu koy tabbee danaa ne moom mii buñ ko tabb ndax buñ ko tabbee ce serait le moins candidat tabb ndax daf cee tax rip daf cee tax rip dans la gestion lépp lu ci positif mi ngi ci biir lép lu ci xawul positif mi ngi ci biir kon koku bu ko tabee mu jàkkaarloog ki nga xamne moy mooy nekk candidat boko boo lan lay wax politique il faut que nit ñi baña xalat sen bop ñu xalat rew mi gis nga senegal xolal barki demb demb rek ndeysaan on a perdu des soldats au Mali Mali ngi nii bu ñu Mali tisoli est ce que lolu sant doit pas nous interpeller nous les acteurs politiques ñu mëna faté suñu bop barki demb rek japp nañu ben terroriste ak ay explosif muy dugg senegal chaque jour police gendarmerie armée japp ñu mel non xol leen tay ji le climat politique ni mu délétéré ni mu tanduwé chef religieux yi di wax nga gis yenn acteur politique wala de, de petits apprentis politiciens di bëgg tal réew mi état dafa wara taxaw dañu wara taxaw té taxaw bobu nak pour mu mëna nek dañuy téyante rek ku ci nek fàtte sa ñu xol intérêt réew mi kan moko ci ci ci lan la nek te intérêts réew mi nekkul dans la division parce que déjà le Sénégal est un très petit pays Sénégal boo ko dugalee ci Mali mu lab de par la superficie te ña nekk foofu di taal li leen intéressé Sénégal la ndax Sénégal moo am côte Sénégal moo am pétrole moo am gaz la ci nit ñi bàyyi xel y a des questions yoo xam ne du ay questions yu ñuy wax sax devant la presse mais un acteur politique war na mën a am cette culture bu la mën a permettre surtout nag bu yàlla dogalee nga toog conseil des ministres man de mosaguma fa toog mais ku fa toog fa ñuy nase di nocce nga xam lépp li nga xam ne mooy géopolitique mooy géostratégie war nga mën a ah yu bëri nga tey ci ndax àdduna tamit euh, noonu la tëddee àdduna noonu la tëddee mais nit ñi moom moo euh, dañ lay def loo daal yow la yaa fi gën a rafet sa costume bi rafet na yaa fi dàq takk cravate kon mën nga nekk président de la république attention président de la république du ay caaxaan de sama xalaat du ay caaxaan 143e édition mu nekk après Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome euh, wax na ne daal état jël na disposition pour euh, par rapport ak saag yi saag kilifa yeeg yooyu euh, ban njàng nga ci mais maa ngi koy félicité bu baax parce que je pense que dabor maa ngi ziar suñu mbokk axlu laayeen ci vraiment les discours yi nga xam ne dégg naa ko fa sëñ Babacar Laye sëñ sëñ sëñ Seydina Issa sëñ sëñ Bañoon ñoom ñëpp wax nañu ci waxu jàmm parce que réew mi. jàmm la laaj àdduna tout court jàmm la laaj boo xëyee looy wax asalaamaaleykum jàmm ngay ñaanal nit ñi waaleykum salaam nga fay jàmm booy julli jàmm booy sëlmal jàmm ah nga ni asalaamaaleykum sëlmal ba pare ne gars yi nañ jaay suñu bakkan il faut qu'on se respecte davantage je pense que maa ngi saluer loolu di saluer aussi Antoine Diome parce que jàpp naa ne euh, ki ko fa teg xam na li tax mu teg ko mi euh, ngi ko teg ab poste boo xam ne mi ngi koy doxal boobu ba tey donc moom ici pourquoi mu teg ko comme ministre de l'intérieur te boo déggee li ñuy jàpp ak ni nga xam ne ñu ngi koy taxawee euh, nga xam ne état taxaw na euh, état taxaw na pour vraiment mettre les choses à l'endroit parce que tamit ëppal baaxul daal ëppal baaxul bu ay kilifa diine ay xalif généraux dem bay wax naan su ma waxee léegi may naa leen saaga leen ma ça veut dire que Euh, excusez-moi du terme li tubab di wax le Sénégal est en train de foutre le camp et c'est bien vrai te lol nak, lu bees la doxalin gu bees la te ay acteurs yu bees ci wàllu politique ñok fi. fii euh, distanciation politique lu ko waral moy meuna japp ne ci procès Mame ak Ousmane Sonko ci digënté rapport e Euh faut qu'on ne pour le tension bi commencer. du rapport IGE IGF tey bo ma jigné dara war nga am preuve mais lan la fi jiñu nit ñi bés bu nekk mu saga fi procureur saga ku ko neex la lu mu dul wax président Macky lan la du wax fii si réew mi il a mais attendez moi j'ai été député il avait dit que les députés ne payaient pas les impôts ce qui était faux bu ñu koy bon tribunal du ñu ko c'est de la diffamation parce que moom il est inspecteur des impôts il sait qu'au Sénégal impôt dañu koy retenir à la source amul benn député buy waaxu dem euh, trésor wala fa nen yaa ngi fay sa impôt par exemple mais boobu ba léegi ba mu tàmbalee ba léegi bu defoon film sur les contre-vérités de OS moom nay fuñ jëm ce serait un film bu nga xamee ne xëy na la cay dëgg seen ne serait pas plus de quinze pour cent de ces assertions parce que tamit euh, réew doo ko yor ci ci naxaate doo ko yor ci ci ci ci ci ci jéem a rek voilà wax boy lu leen luy dofloo seen bopp yi euh, bu ngeen deewee seen yaay juraat loolu wax boobu dafa ñaaw imaginez borom kër bu am benn doom comme si les mamans étaient des pondeuses parce que c'est ça en fait gis nga bu ñu li ñu am je suis un arabe de la paix acteur politique aussi bien le pouvoir aujourd'hui qui un jour ou l'autre sera dans l'opposition aussi bien l'opposition d'aujourd'hui qui un jour ou l'autre là dans le pouvoir ku ci nekk war nga mën a tegu ci li ñu naan jàmm tegu ci yoon parce que loolu mooy àddina àddina du ay caaxaan àddina du ay xiiroo ak ŋaayoo àddina dafa am nooy politique c'est pas un un espace de non droit pas du tout parce que da ngay def politique justement daf la war a mën a euh, yóbbu ci ngay promouvoir la paix promouvoir jàmm man daal suma ñi xam ne tey ñoo nekk ci opposition bi te mu am si ñoo xam ne vraiment assumer nañ de hautes ci état di def li naan balaa teer wàcce bal bi tuuti. balaa teer dañuy ñëw ci ci beneen élément bi mooy Sonko dem na wuy ji wuy euh, ci lañ ko jàppee ci otam te jotam yaa xam est-ce que yow xëy nekk ci dëkk bi bloqué circulation bi jaarul na est-ce que nga xëy ànd ak say nit bloqué circulation bi est que jaadu na est-ce que ngay dawal sa oto policier ne la jaaral nii nga nekk jaaruma fa jaadu na yow ñemewoo ko yow ñemewoo ko avocat yooyu mu àndaloon ñemewuñ ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi kenn ñemewu ko ci ndax képp kuy dawal sa sa oto alkaati ne la fii sens interdit la doo doo fa jaar tey doo fa jaar des fois nga gis fa fa bu vert alkaati bi taxawal le policier est prioritaire loolu code fi jaar do fa jaar jaaral fi nga ni duma fa jaar ça s'appelle refus de tempéré dañ la war a jàpp yóbbu loolu mooy dëgg un lool moy deug mais deuxième chose ce qui va faire le plus rire moy mom ci waxam liñ ko def metti ko de ngeen sortem kéro dimanche néna alkati vraiment liñ ko defal voilà dañ ko jël pour sauver donc mom day mbili gi metti lu ko pourquoi ñun war ko mëna metti lu ah mais attendez mom day yëmbi léegi neena na tuwarkal la oto bi ko duggal tuwarkal la yóbbu ko et cetera xam nga c'est le pouvoirisme quoi c'est-à-dire mom sax quelque part bañu lol dal alkati di ko gungé parce que il est peut-être le président de la république et pour mom euh, lolou c'est un privilège euh, ni nga ba jëmee ci dossier adjara bi Sarr chambre d'accusation euh, rejeté na demande bi nga xamné avocat Ousmane Sonko def nañ ko pourquoi gars yi bëgg dem procès rek ah mais yow tam nak tribunal fi ñuy waxee nii ñaata procès moo fa am nga tooñ ñu yóbbu nga tooñ wala tooñoo ñu yóbbu la tribunal doo dem procès kan mënul dem procès. saisir cour suprême. amul benn mais yooyu yëpp pour guddal jël la rek parce que buñ ko yóbbul chambre criminelle fa lañ ko yóbbu le viol est criminalisé moom moom voté na ko il était député moom si boppam. il a mais il a voté pour ban contre. yow yaa ko gis mu ne il a voté pour contre. man je n'ai pas vu fu mu voté contre en tout cas il dans l'assemblée bi ñuy voté bi ñuy jëlee viol di ko criminaliser waa léegi lu ñu criminaliser foo koy ate ah tamit wax mi tam muy leer ay ASC fu ñuy football fu dul terrain ah, daayira tey jii fu ñuy wasifa fu dul jàkk wala fu ci kaw ci watu malan il faut que ñu bañ a nëxal xelu Sénégalais yi gudd gàtt yéex teel procédé am incha allah ñu fekk ko ñàkk ko fekkee procès dina am. procès dina am Sonko duñ ko may dara. yéen Sonko duñ ko may dara parce que Sonko nit la Ousmane Sonko c'est un Sénégalais comme moi comme toi comme tout le monde mais pourquoi pourquoi moom bu tooñee dara war ko ci fekk. démb mu ne président de la république dafa war a mujjee comme Samuel Doe loolu la wax xam nga yow mii ñame wax loolu soo ko waxee tey doo soo fanaan sa kër man mii su ma ko waxoon du ma fanaan sama kër te moom mi ngi koy wax tous les jours mi ngi wax il faut que des journalistes aussi ngeen ngeen mën def un reportage wala un public euh, boole benn téléfilm sur c'est, mais ces déclarations pour quelqu'un qui veut diriger le pays dinaa la wax Ablaye Wade ko ëppoon doole Fouf, fouf. Ablaye Wade demoon na ba ñu naan gagné na élection yeeg gagné koog nangam sangam peut-être y a pas la magie de l'internet y a pas les réseaux sociaux Ablaye Wade a toujours dit du ma jaar ci ay kadaaf dugg pale mais kii moom bañul dugg bañu jaay ak kanam parce que jaay bakkan moy lan tëdd len ma jéggi len dugg te nak ku ci xolul image kérok bi mu yela nga dem yow jaay sa bakkan yow da nga xaru parce que mom du genn de mars dafa gennon du mu ngi woon këram bi di tak mi ngi toog ci kaw ñaari soxna mi xamna ki di defar ginar ki di defar misuy ataay di jol njarum soomi boy di nan grenade anas anaay domam anaay mbokam gis nga nit looy looy digle da nga ca war a jiitu keroog bañ ne dajit bunt bi xëcc gisoo résistance de daal topp rek dem parce que alkaati yi aussi ñoom nekk luñ fi kenn ah. nekk luñ fi kenn ils sont là pour pour pour le peuple. Macky Sall changé na conseil supérieur de la magistrature changé waat na yeneen nouvelle tête changement bi pour lan la. quoi de plus normal loolu c' est c' est récurrent chaque fois day am conseil supérieur de la magistrature on affecte déjà autant démb. Conseil des ministres pour qu'apposer au mener président nommé nañu bess il y a eu presque une vingtaine de nouvelles mesures individuelles de décision yu mu jël c'est la même chose conseil supérieur de la magistrature président bi mu Cheikh diane Koulibaly nga xam ñu koy rendre hommage paré na day dem duñ ko remplacer duñ ko remplacer on doit remplacer ka koy remplacer kooku amul ku koy wara remplacer kooku tamit kooku tamit c'est un non événement parce que ñañu tab tamit ay sénégalais lañu ñañu remplacer ay sénégalais lañu am nañ xam-xam bu leen ko permettre man j'aurais compris ñu ne ah jël nañu ko mel ni sa Zator def ko président conseil supérieur de la magistrature te jàngul droit ah su boobaa nit ñi mën nañoo yóbbu mais Ali Ciré Sénégal kan moo ko mën a reprocher quoi que ce soit kan moo mën a wax ne kii c'est pas un professionnel du droit te ma fàttali ne conseil supérieur de la magistrature ñoom magistrat yi ñooy daje tabb président li ci am mooy pratiquement. prendre les décisions finales ñoom ñooy tab avec le ministre de la justice loolu tam bu ñu koy fàtte seen i père dafa mel ni rek ngeen ne tey am ngeen le conseil supérieur de la presse yen ay tab seen tribunal per pairs ka moo fa nekk ñu fa nekk yéen a leen tab ñooñu ñooy joxe carte de la presse est-ce que nit ñi gis nañ ci problème y a pas de problème aucun problème moi je n'ai aucun problème là-dessus parce que pour man c'est c'est récurrent. conseil des ministres souvent Abdou Karim Sall bi ñu fi waxee armée yi ñu génn jaay xaalis bu takk armée yi ñu waxaat fii Mamour ci affaire complot Guinée Bissau ñooñu euh, est-ce que Macky falu leen pour di defante wala di defante gëmu ko parce que bon xam nga nit ñi moom ils disent tout et rien parce que ban gisaguma décision tribunal mu ne Abdou Karim Sall def na li wala Mamour Diallo def na li par contre y tribunal de la rue là de certains hommes politiques là xam ne chaque jour ñu ngay wax. président bu tab day tab sur la base de mom li am ci élément d'information compétence té la bok mais confiance da ci am solo boy denk denkal ka nga wolu ba yow den la wolu motax ñu denk la liggéey mais def di bu la wolu won duñ la ko jox sa dépense boo xey sa jabon nga koy jox parce que da ko wolu do ko jël jox maire bi jaay caaf ci bedd bi parce que xamoo ko le problème c'est le président qui choisit ses collaborateurs ñom nañu muñ xaar ba bés bu leen yàlla defee njiit su boobaa ñu tan ñu leen neex le 16 mars 2023 mu ke beneen renvoi dossier diggante Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ma ndax du demoon nu mu demee woon parce que gis nañ ne dispositif sécuritaire bi bëriwoon na lool ci dëkk bi. moom daal mooy seet rek c'est-à-dire man de mu ko doon digal na def ni Mame Mbaye na mu def ba passé da dem tribunal parce que in fine ñi ngay woo kenn du dugg tribunal nga leen di sonal sonal alkati sonal dëkk bi. école yi tëj xale yi duñu jàng et cetera et cetera on est en temps de carême ñii ngi woor ñii et cetera jóg te wuy ji ñu wax la li lay wax nga ñibbi sa kër quoi de plus simple. honorable député Yewwi Askan Wi ne dañ <laughs> ñoom ñoom parce que dañ koy accompagner parce que nit ñi dañ leen critiquer ils ont disparu ah ci champ Jóogi bi ah kenn gisul saa yi rek la ñuy gis mooy Jóogi moom rek la ñuy gis ana ñu ñoom mosuñu génn de est-ce que gis. Oly Sarr dafay arrêté saa buy dem moom mooy moom mooy dem ak avocat bi keroog bi mu génnee wax ne woy woy soxlawuma gars yi yax yoxi ci la gars yi commencé fëgg dën c'est le médecin après la mort et puis qu'est-ce que ça change terewul bu ñu enfreindre la loi la loi ça va transiter manifestation devant l'institution de l'Assemblée nationale tey waa coalition Yewwi Askan Wi député yi def nañ ko xanaa loolu ñaaw na tey mais xam nga boo boo boo toogee ci place te xamoo place ba la la muy jëriñ yii yi lay indi c'est-à-dire y a des députés qui sont par effraction député par effraction par accident de l'histoire nga nekk ko moo taxit li xew assemblée musul xew député yi damm table député yéeg ci table député gàddu urne député saaga député coup de pied député wéex mais soog am Sénégal tey encore ils viennent de faire autre chose pour dire quoi j'ai vu leur point là leur foultitude de réclamations. Alors, vous bu ñu koy d'autres assemblée ils ont ils ont l'occasion à rencontrer le ministre de poser toutes les questions il n'y a pas de censure là parce que nous nag sommes leen njëkk députés. député ah, amul censure les missions là li les les commissions les commissions d'enquête Nous pouvons, assembler des day installer 20 commissions d'enquête ça ne se passe pas comme ça de am ay procédures ils posent des questions questions ils posent ça sur les sur les réclamations là il y a des questions qui sont déjà réglées. Je prends juste l'exemple des ASP. un salaire dégg relevé d'un ko y a un salaire de presque 80%. c'est pour cent ci liñ doon am xaw 90%. defal des leen ay yeneen formation ba sax ñu leen di déployer dans la circulation routière xamuñu loolu yëpp c'est-à-dire ils ne regardent même pas l'actualité ils ne prennent même pas la peine de lire les décisions du conseil des ministres parce que ñoom ñu nga am temps quoi gis nga ku bind lii c'est une opposition conférence de presse ou opposition point de presse parce que chaque semaine yéen sonn ngeen chaque semaine y a au moins deux ou trois points de presse pendant ce temps le président il travaille mu yow aji dem Sédhiou inauguré ay yu mu fa def tabax fa leneen oui c'est ça ñun on est dans le temps de l'action ñoom ils sont dans le temps de la parlotte mais am mooy yéen seen candidat kenn xamagu ko jotagul mun waa Khalifa Sall di ko njëkk wax te jotagul Ousmane Sonko di wax candidatem te jotagul te Macky parce que ñun ñun ñoy imam xam nga imam sañu te jité timis tisbar 2 heures nga ni timis lay jité mën mënta nekk da ngay xaar ba timis jot waaw kep bu timis joté ci le imam sañu na bokay amul candidat am amagul candidat am amagul candidat benn bokk yaakaar moom retien li ma lay wax mën ta ñàkk candidat lu taxawu lañ ko ba léegi mais parce que nee naa. même wax naa la ko jotagul. mais borom kër boo ko njëkkee yow doo tëddaat xaar njëkkal yow borom kër yi dugg ci waañ bi ndekki ndekki bi nga xool. mais Macky da doon teeloo candidat bu yàgg laata élection am 2012 Yaakaar daal jàppal ne dina am candidat parce que taxul nag ñun ñu toog di liggéey bi ñu war a def ñu ngi liggéey. Mhm. xam nga ñun ay carte la ñuy liggéey ñu nekkuñu si télé ak rajo yi di wax ah on travaille sur le terrain on a un bilan on a un programme. ca loolu lañ nekk te euh, on est une machine électorale boo xam ne 2012 ba léegi wax mu ban élection lañ fi mës a ñàkk Sénégal amul on a gagné les élections incha allah 2024 aussi Benno Bokk Yaakaar sera victorieux. Ah, léegi su ko euh, bu ko condamné voilà léegi irrecevable condamné ou li ma amal solo man tey mooy Benno Bokk Yaakaar gagné incha allah te Benno Bokk Yaakaar day gagné pourquoi parce que mooy la solution pour la stabilité mooy la solution de la continuité mooy la solution xoolal pëcc xóobeeg yëpp daal nit ñi revenir voilà xam ne réew du ci ay caxaan réew kenn du ko yore ci xët-xët tàng am ñu nga xam bo lan leen président suba non réew mi dina changer c'est-à-dire on aura un pays sans dessous sans dessus ñu nak euh, Benno 2012 ba légui on a un président respecté et respectable ni ñu ko respecté bitim réew sax ñu bari respecté wuñu ko nonu ci bir réew mi ndax lan ci bëdëm réew dañoo xam njëriñam xam personnalité am xam valeur am te ku koy jéem a karaj ji rek da nga toogul ak moom boo toogee moom tekk ngay def te Macky Sall loo ko bañ bañ bañ bul toog ak moom boo toogee moom rek bëgg ko boo toogee rek bëgg ko boo toogee moom bëgg ko parce que ah il est convaincant c'est un homme très convaincant c'est un homme d'expérience ko ku am yar la ku am teggin la ireo amin'indray ny ansakalo aloha angafagnay makilifa ko tolny ku muntakady na bagako ko kamadi sing bayi sing mansun ngafagnay na bagako ku xamandi duñ ak ñeneen kilifa dina yëf nekk xoolal semaine bii li fi xew lépp si ay déclaration ay chef religieux rek ngay dégg lu gëj am sénégal lu fi gëj am parce que gis nañu loo xam ne xëy na ñoom dañuy toog di gis ñun lu ñu dul gis ndax nag yàlla may na leen ijaaba may na leen loo xam ne ñun ko suñu classe kon nag danañu delo si seen xel xam ne ah am nañu daal koo xam ne c'est une denrée rare si kàddu gu mujj na yàlla def jàmm Sénégal jàmm ji sax jàmm ji continuer surtout xale yi maa ngi xamal ne nañu dal nañu dal révolution boo gis ci taabal lay mujj c'est-à-dire ka lay génne moom na njëkk génne gis nga ñun bañ daan ànd ak président Moussa moo daan jiitu ñu topp ci ñeneen anak ak Tanor même chose ñeneen daan ànd ak Macky Sall même chose waaye dama leen jaay bakkan dama leen marché bakkan bakkan lu muy jar ah. man boo ma nee kaa jaay almat kaa ñu demal nga jaay sa bakkan man la jiitu nga jaay ba pare ma xool sa weccit bu ma doxee ma soog a jaay au oh, moins bu ma demee sama njaboot samay soxna ak samay doom bu ma demee ñu am lu ñu mën a dundee wala je pense que loolu laa bëgg xale yi comprendre xam ne coow lii du ay saagante ay xaste le débat vol très bas ay ngay non le débat devrait être un débat contradictoire président CMU qu'est-ce que Ousmane Sonko propose à côté de la CMU président les bourses de sécurité familiale qu'est-ce qu'il propose qu'est-ce que Ousmane Sonko propose à la place du PIDC c'est des réponses concrètes qu'est-ce que Ousmane Sonko propose à la place de Promoville qu'est-ce qu'il propose à la place de voilà de, Air Sénégal qu'est-ce qu'il propose à, à, la place du terre du bête voilà Il dit, économiste, gars toc, toc. mais dara tout le programme complot troisième mandat Gombolo, troisième mandat non xar day weesu mbota de jërëjëf jërëjëf merci beaucoup mbokk yi kooku mooy euh, Zator Mbaye ministre conseil euh, ci Macky Sall après nekk euh, ndaw moo doon def waxtaan bu am solo boobu di leen dig merci beaucoup à la